ak ñi mu àndaloon parce que li ma jafe-jafe yi mu am ba génn armée Macky ak ak ak état ñoo ma ko teg mu jaay ma ne moom anti système la ñu ànd ci anti système boobu. Mm-hmm. ñu ànd ci ba élection yi jot moom mu leer ma ni biir ma ni wax dëgg neex yàlla instant bi bu fekkee da taxaw di ma wax ne ma da ngay xaar ay deuxième tour rek wala da may calcul politique yooyu yaa ngi may yàqal man parce que man li ma gëm mooy dégager Macky Sall te sama papa da ne ma jàmbaar du xaar deuxième tour jàmbaar day commencer égaler. tey geer boo cay dem doone noonu nañ xaar ba gars yi éliminer gars yi par ñu doog a dem ca guerre ba nañ xaar ba éliminer gars yi par a yow li nga war a def mooy njëkk ca guerre ba comme que yow il a bien travaillé si li génne Macky Sall ci réew mi waaw carton rouge fi lañ ko def tibb tànk Macky Sall tibb tànk fi lañ ko def wéele Macky Sall fii lañ ko def lu amul acte bu bëggaan deful pour daaneel Macky Sall léegi ñëw ba daaneel jot ko taxaw jot nga ne ko taxaw lan moo waral loolu taxaw ne du ma ko daaneel ne yow da ngay xaar deuxième tour moom nee na dafa am benn protocole bu ñuy wax protocole teenu bàyyi. neen du ci xuus na ko procuré woo ma ne ko man protocole bu teenu bàyyi soogi amul mais protocole bu Kër Mor Ndiaye moo am. Kër Mor Ndiaye moo Kër Mor Ndiaye mu nga fële ca ginnaaw Thiès. benn responsable politique bu APR moo fa am kër le 3 mars 2024 responsable boobu ñëw na fa. ñëw na fan fan la kër góor gi. waxtaan ak Bougane dugg biroom ñu yàgg fa responsable bi gën dem. yàggul dara Bougane génn dem sans garde du corps ah. le lendemain waa ji ñëwaat fa le 3 boobu la sawaay doon wax naan Ousmane Tounkara di wax ne Bougane a été reçu au la kat boobu la ko Ousmane Tounkara wax. gëm nga ko. waxuma waxi Bougane de mais dama ne Ba xaritam la Bougane laaj ko kuy Amadou Ba. Amadou Ba ban Pastef. bu Amadou Ba bii. ba di ngeen génn fii sànq. Amadou Ba bu bu bu bu bu Benno Bokk Yaakaar. benn bi fi nekkoon. waaw. waxatuñu l'autre chose. nga loolu soos nga ne noo Diomaye Faye la moo tax mu génn prison dem seete Maam Abdoulaye Wade këram te man Bougane seet siwu ma nekkatul décision politique décision personnelle la jël foofu mhm. man ànduma ci ma bu doon ay décision personnelle laay naw damay toog armée ah. armée su ma neexoon baalu su ma neexoon ne chef ma mais dama assumer mes li ngeen ma teg jaay doole te du ma ko nangu ma jóge fa te foofu salaire bu baax laa fa bàyyi bàyyi fa carrière militaire dinaa ñëw ba fii ci politique na nga bëgg maa dugal ci guut yooyu du ma ci dugg Eh, nga ne protocole bi ban. Kër Mor Ndiaye. laaj ko ko ci Thiès. laaj ko ko. waaw ko defal say enquête nga xam ba ban responsable moo dëkk Kër Mor Ndiaye. Kër Mor Ndiaye ak responsable yu Macky Sall yi kan moo ci gën a nekk xaritam. mosuñoo réeroo nga bëgg a dama ne biñ ko rekalee moom Bougane. biñ ko rekalee Bougane. waaw ba bi ñuy dem ci élection yi. Bougane bokk na ci ñi affaire kii boobu report yooyu. Ah. discours boobu mu defoon ci waaw discours PDS boobu. xam nga nag. Euh, euh, waaw xaaral ma wax la nga baal ma ko nabu rek. dañuy bañ tam ñun parfois def diffamation parce que bu fekkee ne propos yi ngay wax report bi. Bougane signé wul liste audience ba demoon ca Macky. ah. mais je te dis la vérité. man Bougane man Bougane yor milliard yor cent cinquante millions Bougane mënu ma defal lu mu amul man dix-neuf ans laa nekk fonctionnaire de sama góor yàlla ak sama xeex mu ma génne armée kon lu tax fenal mhm. du ko fenal mais li may wax ni moom xam na ko bu mu ñu rey ak protocole teenu bàyyi soogi nee na du ci xuus naka procureur woo. Mm-hmm. ma ne ko man du ma ci xuus porté ma plainte mais sama propre ma indi lay preuve. plainte boobu laa doon wax nag foofu laa doon bëgg a dugg sax. na ma indi na ma ma indi ko am am na ñoo xam kenn du seq ak ñoom. na mm-hmm. ma indi plainte. Ah, ñu dem toog ñu wax mu wax ma wax. wax bu ànd ak man kër góor gi laa dëkkoon. fa laa dëkkoon. ci a moom. du ma wax ci vie personnelle bu gaan am na gars yi ma woon naa ma noonu fa nga dëkkoon am nga loo may leen fii ba yomal xiyaamate lakk ba du ma wax ci vie privée bu su ma ci bëggoon a yàq wax ci loolu am na lu ma ci xam mais du ma ko def mais li ñu séq li ñu jaay ci politique ni bu gaan daa jaay mouvement bi Amadou Ba mouvement ban bu gaan ko modèle waaw xaw ma ko maa ko wax je l'assume mouvement gëm sa bopp bu gaan ko modèle xaw ma ko bu gaan bu doon bu doon voté Ousmane Sonko Sonko yow yaa toog wal fajiri ñëpp di la dégg maa ànd ak yow jour boobu nga loo wax Ousmane Sonko bu amee candidat anti-système man moom laay jàppale man Bougane waxoo loolu ñëpp di la dégg nga xëy suba def lee lu ko waral diggante dund ak dee ñàkk jom xaju ci lu waral loolu. lu ko waral moom invité leen nga laaj ko. nekk ko ah, la moo tax nga changé avis jàppaleetoo Ousmane bu ma wax ay protocole de. dama ne li ma ci xam nee naa la du protocole teenu bàyyi soo gi mais kër Mor Ndiaye la. te saa yu waxee ci kër Tedd Baye Sogui moo wax ci kër Mor Ndiaye. kër Mor Ndiaye d'accord yow ci sa kàddu yi nii ngay yëkkati ngoone balaa ngay ñëw ci sa question euh, amul benn règlement de compte wala benn frustration. Mm-hmm. wala jotee sa diggante ak Bougane. boo ah. xamante ne wax dëgg yàlla da ngaa jàpp ne kut ko kut mën nga koo yàqal boo yëkkatee say kàddu. parce que ku dëkk deux ans ci këram. yàqaluma kenn de. Mm-hmm. amul dara lu ngeen jotee. amul amul frustration non non man benn amul frustration. xam nga Bougane lan la ma def. mooy ñun dañoo jug ñaari at topp àll bi. ne Macky ku bon la Ousmane Sonko la ñu àndal. opposition bi lañu àndal Macky ku bon la Macky ak Sonko bu ñuy xeex day jëlaw yat ñaf Macky ba mu tëgg ne Sonko loo jot ak Macky ñu ñëw ba càppaandaw nga taxaw lu tax nga taxaw bu mu wax ay protocole lu teelu bàyyi soogi loolu taxu mu taxaw. Bougane war na taxaw ne la non Diomaye dafa seeti Abdoulaye Wade tamit seet si ma. ah léegi gëm sa bopp gi moom lu mu ko. war na wax war na wax ne Diomaye dafa seeti Abdoulaye Wade te man seet si ma dafa dem ne am Abdoulaye di jàppale ñëw ñëw man na ma jàppale ma yow ko. yow yaa ngi fekk na kàllaaj yow may wax ma ah, eh? sa bopp gi moom lan la woon ci yow kon. kanti yow gëm li ma la wax lu mu woon ba may ñëw ci Bougane damaa gëm idéologie am mooy dañoo xam na loolu mooy gëm sa bopp waaw non man sama idéologie bi may ñëw ci Bougane dama doon xeex ah, da ngaa indaale sa bos. man dama doon xeex Macky sàll depuis 2016 ba 2022 li nga doon xeex mooy jële fi Macky Sall. waaw bi ngay ñëw léegi di moom ba nga koy tànn di ko def amoon na ay leaders yi fi newoon. waaw te déggoon nga ni moom gëm sa bopp la woote. waaw te firi woon na ko. waaw am ci programme am ci vision nan la firee xam nga ko. bind na livre. waaw lire naa livre bi. ah livre bu am nga ànd ceeg moom ci loolu. nga ñëw nag di fekk si gëm sa bopp indaale sa sa gis-gisu bopp. waaw sama gis-gis sa philosophie bopp sama gis-gis man mooy. yow kay yaa tàggoo kon kon dafa mel ni yaa tàggoo moom bu yàgg. yaay woon ci biir waaye tàggoo ngeen. sama gis-gis mooy li rey Fulbert Sambou rey Didier Badji. Hmm. rey rey Didier Badji sacrifier sunu sunu Kofi Maka yooyu man philosophie boobu laa am philosophie militaire laa yor man li ma yàgg a xeex sa plateau lan la Pa Ousmane nañu yokk salaire militaire yi li ma yàgg a xeex sa plateau lan la injustice bi dal militaire yi man frustration laa jëlee ci Macky Sall doog a ñëw ci Bougane man frustration laa jëlee armée. est-ce que du frustration boobu moo la jëlee ci Diop euh, ci xam nga ma jëlee ci moom Bougane xam nga ma bu ne woon tey léegi soit bu kesoo lu mu choisir Diomaye Bougane su ne woon choisir naa bulletin nul ñun nan nan dem wax leen Sénégalais yëpp nañ voté bulletin nul wóolu ma ñi wóolu ma ñi naw na ñu ne bulletin nul am na deux deux cent mille bulletin nul ñu ne Bougane la wala Anta Babacar Ngom wala Daouda Ndiaye wala keneen dix neuf nga ne kenn doy la ci. waaw mais ah, génnaat na ne ku ah? neex mën ngaa génn nga voté ku la neex. déedéet ba mu naan ku neex na génn voté ko ne fekk na moom moo fa des. ah boobu ana nit ñi. ñëpp dem nañ. grand. ah non franchement. waaw d'accord mais. Euh, man 256 communes laa yoroon commune dañ ma doon woo allo caporal nu ñuy def may leen bàyyi waxagul de mais jomaay bi moo ko yor man ba mu nee neutre na laa dem sama page Facebook dama ko njëkk a bind na ko grand neutre nga mais man neutre wu ma. ko message. damay waaw damay dégager Macky Sall li nga def nag bett na ma te fooguma la woon fii. nu la tontu. tontu ma bizarrement. ma ne je vote et je fais voter Diomaye à minute le samedi. la moo tax mu denc vidéo yi def ñaari vidéo mhm. benn vidéo bu bi dina mës a génn de. ah mais te ñu bëri yi def euh, pronostic ci kii. ñaari vidéo la def benn mu wax lu baax Diomaye Faye benn bi mu wax neutre bii denc ko ba samedi midi doo génne neutre bi lu tax génnul Diomaye bi. ñaaw nag. moom fa mu diwoo ñun fa lañ sangoo mënul def lu ñu ëmb ci réew mi de. dafa yàqal ñu bëree bëri ci biir gëm sa bopp damay jël exemple kenn ci Assou Diouf bu cees Assou Diouf ay millions la yàq ci gëm sa bopp ne sa reste que yow bëggoo pos li gënoon rafet ci man bu doon maa bëggoon xam nga def sama kàddu jiitu na ma te nit ki ci kàddoom lañ koy tënk nag waaw sama kàddu jiitu na man man man bëggaan ndax lan laay def ok